billahi min ashaytaan rajim bismillah arrahman irrahim alhamdulilah ala kulli xaal euh, mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaar leen ñaanal jàmm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq te nag dañoo fas yéene ñëw ci ab tomb bu am solo muy tomb nuñ baaxoo defee waxtaan yi yenn saa yi ñu jël ay tomb di ko waxtaanee lu aju ci wàllu gént euh, yenn saa yi nag bu duggee ci ab tomb nañ ci ñew jël pacc bi yaatu leral li ñuy wax moy lan ak yeen jeexital am ci dunduk doom aadama bi tay nag dañu jël gerte wolof di ko wax gerte bu dé tuba du hal arachid mu nekk nak lu am solo nak gerte nak gantax la bo xamné ne mën na yagg mën na jariñ mën na lu bari ndax gerte dañ koy liggéey mu doon diwlin diwlin original mu génnee ci gerte mooy bi gën ci diwlin ndax naturel la am na wuñu am na lu ñuy wax ràkkal yaakaar naa ñu yàgg dem ci machine yi defaree diwlin xam nañ lan mooy ràkkal ràkkal dañ koy lekk sax nit mën na koo lekk dañ koy jox ak jur xëy na jamono ji moo toll foo xam ne nit ñi bari rës nañ koo lekk waaye ràkkal ñi yàgg nekk ci daara yi yàgg a liggéey fa ñuy nekk fa ñuy defaree diwlin yàgg nga koo lekk lu neex la nag bi ci desaat tege dege moom lañ koy defaree mooy gerte la ñuy saaf ba mu doon tagadege wal ko kon gerte am na solo bi ci desaat noflaay gii ni toggee mbaxalu saalum ñu bari xam nañ ko te bëgg ko lool moom it dañ koy faral di liggéeyee gerte ndax mbaxalu saalum buñ koy wax bu dee mbaxalu saalum bi baaxoo xam moom ala kulli xaalin foofu gerte moo xam mu xonq mbaa mu weex ma waaye foofu nga boole ci gerte maafet buñ koy wax boo koy lekk yaakaar naa dana doon tege dege te tege dege boobu gerte lañ koy liggéey xam naa dana ni kii moom daa bëgg lekk <laughs> waaye nag <laughs> lépp leeral moo ci àgg kon ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu xëtër wala wàllu xol wala ay poumon lu ci ëpp lañ ko yóbbee mooy lekk lekk goo xam ne diwlin ngeen ko togg diwlin original diwlinu original bokk na ci gerte nga wal gerte nal ko mu génnee la diwlin ndax gerte day génne diwlin moom it nag bëri nañu ci indi ay leeral ci wàllu gént am na ñu ci indi ay leeral yu am solo waaye am na ci ñoo xam ne niñ ci indi ay leeral am na ay njuumte ndax lépp luñ leen wax ci ne gént baaxut du caag na ci ñëpp la bon waaye lépp loo xam ne nit a koy wax ne ci gént baax na du caag na ci ñëpp lu baax loolu foofu nit ñi bàyyi loolu xel kon gerte nag lu ci ëpp ci gént wax dëgg taxawaay yu am solo lay taxaw taxawaay bu leer te baax. taxawaay la woo xam ne bu nit ki amee ak seetlu dana ko gis ñi may seeta nag bokkuñ ci li may wax ci génte xaddisu nafsi nag ñooñ bokkuñ ci ki nga xam ne guddi yu toll nii daa nekk ci ab toolam di bay di di naan di ñaan yàlla gerte gi ñor ci jàmm bam déqi ko ba xaaj gerte gi na def ngooñ mi na kooku waxuma ko ndax kooku xel na ci nekk bi ci desaat commerçant bi nga xam ne baana baan lay jënd gerte di jaayaat kooku waxuma ko waxuma ki nga xam ne bi daa stocké gerte ci këram am xelam nekk ci mooy xalaat mbaa du yàqam dana yàqu nu muy def ba mu génn ci loxo waxuma kooku ndax ñooñu mbir mi moo nekk seenam xel ñu koy xalaat di ci desaa tamit koo xam ne dafa dëkk ci mbir mi mbir moom dëkk ci te doo ko gént néewaan lu muy am donte nag mën nay ñàkk yenn saa yi mooy dëkk ci mbir moomu gerte nga dëkk ci gerte gi bu dégg bëccëg subaa ngoon ba noppi doo gént gerte loolu jafe na lu muy am moom jigéen joo xam ne chaque jour mu dem marché di togg añ kooku tëdd di gént lu yomb lay woon tëdd di gént togg añ yomb parce que daa dem ba daa des ci xel mi moo koo xam daa rot dawal chaque jour mu ngi ci tali dawal moom it tëdd di gént dawal moom it lu ci bëri day xeeti gént yoo xam ne xaddisu nafsi lay doon moo tax loolu foo ko fekk njàlbeenu gént lay doon njàlbeen bi ngay doog a nala noonu gént gu leer gu baax lu ci ëpp doo ko fàtte bu noonoon cent ans sa xel bu ci nekkee danga koy mën a wax gént gu am solo dëgg tamit du gudd du gudd de bokk nag koo xam ne dalay nettali ak géntam wax mën la ko wax si ñetti waxtu wala ñeenti waxtu ci biir gént lu cëpp nekkut loo xam ne lu am solo ci wàllu mbir mi mën na koo jàpp nag waaye nekkul loo xam day tekki dara gént gu am solo dëgg-dëgg gën kaa bëri normalement daanaka ay seconde lay doon wala lu leer nañ lay doon nga jàpp ko mën koo wax jàll ci utal lay solution waaye ñi nga xam dañuy gént ñaari waxtu ñetti waxtu loolu foo ko fekk benn sam xele ci nekk waa ilaa wàllu rab leen ko def wala wàllu seytaan di leen jaxase loolu it dina dikkee yenn saa yi ci gént ci nit ki gént gerte nag am na ay tomb ak ay anam yu bari yoo xam ne da koy waaye ñi nga xam dañoo aajo woo wàllu jokkoo gi mooy numéro bi mën nañ koo jël 78 la 443 75 27 ku bëgg ñu firi ko gént wala seet wala listixaar bu dee firi gént yi nag dafa am fay loolu ñu bàyyi ci xel baax ku bëgg ñu defal ko listixaar bu leer wala ñi nga xam ne dañoo bëgg wàllu ubbeeku wala bayre incha allah buñ jokkoo tamit nañ leen ci teg ci yoon ci yoon boo xam ne dinañ xam fu ñuy jaar wala ñi nga xam dañoo bëgg xam seen sarax ak ñi nga xam ne dañoo bëgg xam seen wàllu tabian ak ñi nga xam dañoo mbokk mu réer te mëntuñ koo gis xamuñ ci lu mu nekk fu ne dem nañ fa loolu it ku ñu contacter dinañ la wax nuñ koy defee bu ko wax la ci leer nañ incha allahu rabbi wala ñi nga xam ne émurit daf leen sonal wala ndoxu siti yàq seen lépp nag ba tee leen am doom émurit yàq na seen liggéey yooyu yëpp incha allah am nañ ci ay tegtal ku ñu contacter dinañ la jox ay tegtal leer ci wàllu mbir moom kon numéro bi moo affiché noonu ci baar bi 78 443 75 27 ku ci njëkk nag mooy koo xam ne dafa gént di yëy gerte xort gerte xort am na ci ñum baax fekkee da ngaa gént di xolli gerte xort di ko yëy dina teg la wërsëg waaye wërsëg lay doon lu ci ëpp mën naa ànd ak ab coow mooy am-am boo xam ne su lu dikkalee nit ñi mën nañ laa mbamb lool bi ci desaat tamit dana tegtale koo xam ne cet dana koy jàpp mooy koo xam ne dangaa gént di yëy gerte loli da nay doon ceeb ci ñen ñi ño xamne mën na leen japp yaqal leen lu bari bu de ko xamne da ngay lu aju ci walu soxna nga gënt gis toolub gerte loolu baxna bu de sey la ala kulli hal dañ lay xamal ne ku jigéen kooku seen walu wërsek and na seen walu mbiri bop and na te bo ci duggé mën nga ci am lu foko sa ñort motax ci anam bop ko gënt moom mën nga gaaw def farata benen bi ci topat fii gerte nekkee ay war mën nay doon gerte kemb mooy jékki-jékki gént di yey gerte kemb te xamoo fu gerte gi jógee loolu saa bu amee yenn saa yi dinay doon ay war ci nit ki ku lay waaj a war wa ilaa ngay dugg ci loo xam ne mën nga cee am ak réccu koo xam nag daa am ñu lay xeex ci palaasub liggéeykaay wala ci kër goo nekk nga gént jox la gerte nga di ko yey baax na loolu waxtu bu amee rek séentul na ñu la doon xeex mën ngaa mucc ci seen i pexe ci misaal sax nooy ñooy doon la yàqal daal seen pexe mën naa bañ a antu moo tax ku gént loolu rek mën ngaa am yaakaar bu baax ci mbir moom nga dëgmal ne alaa kulli xaal yàlla mën na la koo leeral ci anam boo xam dana gën ci yow beneen bi ci toppaat tamit koo xam ne dangaa gént mel na da ngay jënd gerte gént jënd di gétt gerte baax na loolu teraanga lay tegtale wala am am wërsëgu yaatu boo xam ne dana dugg ci say loxo wala mbir mooy séentu moo xam ne mën naa sot te bu sottee dana gën ci yow euh, beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangay gént di séddale gerte wa illaa nga gént gis nit ñi séddale gerte loolu saa bu amee ci gént baax na loolu dina tegtale kun tegtal sarax mu war koo def mooy nit koo gént loolu loolu moom la engagé mooy tegtal nañ ko sarax mu jënd gerte séddale ko saraxe ko loolu su ko defee alaakulli xaalin na ci aji gént ji bàyyi xel bu baax a baax Euh, beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangay wut liggéey bëgg am liggéey nga gént gis gerte loolu saa amee séentul mbir moomu ngay mën ne liggéey bi nga doon sàkku yàlla dina la ko jox beneen bi ci toppaat tamit koo xam dangaa nekk ci ay xat-xat nga bëgg cee génn wala nga xam ba xam danga ci génn wala doo ci génn nga gént gis gerte moo xam gerte keem wala gerte xort lu ci ëpp mën ngaa am yaakaar ne 100 xat-xat yooyu nga nekk ala kulli xaal yàlla mën naa dogal nga génn ci balaa yàgg beneen bi ci desaat tamit koo xam ne danga nekk ci barab di liggéey nga bëgg yokkute nga gént ñu jox la gerte gu bari loolu saa bu amee bu dee gerte ko bu baax na bu dee gerte xot tamit day tegtale ne foofu danga ko gën a am wàccuwaay liy tegtale yaakaar ju tas nag ci gerte mooy gerte xott mooy xottu gerte loolu moom gént gis ko wala ñu gént jox la ko baaxut loolu dina tegtale wor ci benn anam bi ci desaat tamit dana tegtale yaakaar ju tas ci mbir mooy dugg wala mbir mooy nekk moo xam ne mën ngaa dem ba ci biir moom ay gàllankoor moo tax ci anam boobu mu koy gént mën ngaa bàyyi xel bu baax a baax euh, beneen bi ci toppaat mooy gént ñu jox la gerte ju bari kër ci message na la kër gi yëpp yaa ko wala dépôt bi yaa ci gerte loolu baax na loolu saa bu amee rek bu dul ko nekk ci ay xat-xat séentul na sa buntu wërsëg dana ubbeeku bu baax wa ilaa li nga dëgmal Euh, dana am yokkute bu baax a baax a baax wala mbir yu la jafe woon lool yëgal ne yàlla dina la ko yombal nga am ci lu fa ko si moo tax ci anam boobu moom baax na beneen bi ci toppaat ne koo xam dangaa gént gis toolu gerte nga gis ne gerte gi sax na commencé di buddi loolu it baax na loolu wërsëg bu yaatu lay doon même xale bu jigéen boo xam ne nekkagul ci néegu sëy gént jox ko gerte baax na loolu lu muy teg tegtale mooy ne séentu mën naa dugg ci ngoro loo xam ne sëy lay jot te sëy boobu ci duggee na tegtale sëy bu baax benen bi ci topat moy ko xamne da nga nek ci ap yoon di sakku yoon bi deugar lol da gentu ji defal la jalu gerte baxna dañ la xamal yoon bi man na soti waye tektal nañ la sarax moy soko mané nga genné gerte saraxé ko na tektale ni bala yag mën nga am ko bax ci mbir euh benen bi ci topat tamit jigen ju gént gis gerte kembu baxna mo la gerte xott lu ci ëpp su la fekkee nga ëmb ala kulli xaal mën ngaa rafet njort ne mën ngaa génn ci ëmb bi maam ci misaal mën ngaa am doom amin doom bu yomb boo xam ne mën nga cee bañ a am benn jafe-jafe moo tax loolu koo gént mën nga am yaakaar baax ci mbir moom ngay dëgmal beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangaa gént sa waajur wi gaañu di la jox gerte loolu saa bu amee benn ñaan la sa diggante ak sa waajur bu la fekkoon ci xat-xat diñ ci génn bi ci toppaat tamit loo gën a góor góor lu ñaanal sa waajur woowu te nga génneel ko sarax lu aju ci lu ñuy lekk ba ci ba ci gerte googu mën nga koo génneel ay lim saraxeel ko ko loolu dana waneen dana baax lool ci moom mi ngi ko géntoon euh, beneen bi ci toppaat koo xam dangaa gént gis ay saaku gerte saaku gerte tamit tranga la mooy wërsëgu yaatu wooy sàkk boo xam ne yàlla dina ko yombal beneen bi ci toppaat koo xam ne danga doon ñaan yàlla lan mooy sa sarax nga gént ñu tegal ay saami gerte yu bari loolu dañ laa misaal ci lu leer mooy loolu nga gént sarax la ci say sarax soo ko mënee di génte boo nekkee ci ay jafe-jafe wala booy bëgg a dugg dara dana wane dana gën lool ci sa wàll mbiri bopp beneen bi ci desaa tamit gént ñu jox la gerte baax na bu dee xaalis booy lijjanti dana sotti bu dee ko waxaloon balaa yàgg la ngeen waxoon dana am lu ci changé dana am lu ci yokk daan beneen bi ci desaa tamit waxataan ak nit ci wàllu liggéey ba noppi gént gerte bu dee gerte kemb mom lu ci ëpp mën naa bañ a lu gën mën na tegtale seen digënté mën naa am ay war waye bu dee gerte xortu la baxna dana tegtale ni lool ngeen bëgg and ci walu liggéey mën na sotti te bu soté dina doon teraanga seen digënté wala dina doon yokuté seen walu mbiri euh benen bi ci toppaat tamit gënt di jënd gerte baxna gënt di jënd gerte na tegtale tranga mo gënt di le gerte danañ doon ay sarax ci nit ki nit ki lañ digal pour mu génne sarax gerte loolu it dana am euh, ba tey bokk na ci gént gerte mooy gént ñu jox la ay xottu gerte yu bari baaxul moom it su fekkoon te nga waxanteeg nit ci wàllu liggéey boo moyt mën na dem ba ci biir ay war a am seen diggante wala ay jafe-jafe la ngeen tënkoon daal mën na am lu ci soppeeku ci biir moo tax ci anam boobu ay xottu gerte baaxul ñu jox la ko ay xottu gerte na waaw man nag gerte gu am gerte xott mooy la am beneen bi ci toppaat tamit gerte bu tooy loolu soppee su ko ci gént gerte gu tooy dina waral ay jafe-jafe nag waaye du nekk jafe-jafe yoo xam ne mën na yàqal nit ki daraam beneen bi ci toppaat muy gént di lekk gerte caaf gerte caaf baax na waaye wërsëg la nag wërsëg boo xam ne wàllu cet mën na laa sonal wala wërsëg boo xam ne wàllu coow mën na cee bari mooy gént di lekk gerte caaf même gént di baxal gerte baax na gënd di baxal gerte benn dana doon bëgg-bëgg ba nit ki amoon yàlla di ko sottal wala ilaa na séentu ay teranga yoo xam ne mën naa tàbbi ci ay loxoom wala ay mbir yoo xam dana dugg ci loxoom te bu duggee ci loxoom dana wane ne yokkute lay doon ci moom moo tax ci anam boobu tamit baax na euh, beneen bi ci toppaat mooy gént di yëy gerte kemb teranga lay doon dana doon ubbeeku dana tegtale aajo ju faju même sëriñu ñaan di ñaanal nit dara ba nga defal ko xalo wala nga di ko li saxaar dara nga gént gis gerte ñu tegal la ko lool it la nga na ñaal nit kooku ala kulli xaalin baax na même kun jox wàllu càngat ci wàllu ubbeeku nga gént gerte kemb wala gerte xottu baax na dana tegtale ne ji nga doon sangoo baax na dana tegtale ni mën ngaa séentu wàllu ubbeeku bu baax wala avancement wala teraanga yoo xam ne mu ngi taxaw sa kanam te yàlla mën naa dogal mën nga cee jot moo tax ku gént loolu mën ngaa rafet njort bu baax ni mbir yi nga doon sàkk wala mbir yoo la jafe woon lool ala kulli xaalin mën ngaa rafet jot na yàlla mën na koo jàppandal euh, beneen bi ci toppaat tamit même nekk ci barabu liggéeykaay gént yu jox la fa gerte baax na loolu saa bu amee rek yëgal ne barab boobu mën nga fa am teraanga yaatu wa ilaa bu doon da ngay sàkku yokkuteef mën ngaa wane ni barab boobu mën nga fa am yokkute ci wàllu liggéey bopp moo tax ku gént loolu tamit mën nga yaakaar baax ci wàllu ay mbir yi nga xam ne yaa ngi ko dëgmal Euh, beneen bi ci toppaat tamit gént jalu gerte baax na wërsëg la xaalis la alal la am am la joo xam ne mu ngi taxaw sa kanam te dara teewu koo jàppane moo tax ku gént loolu tamit mën ngaa seet ay avancement yu baax a baax beneen bi ci toppaat tamit jigéen ju nekk ci wàllu sëy gént gerte bu la fekkoon jafe-jafe sëy tamit dana tegtal jafe-jafe yi balaa yàgg mu jeex même góor goo xam tamit da nga am jafe-jafe nga soxna nga gént ñu jox la gerte gu bari loolu it mën ngaa séentu ne jafe-jafe yi amoon seen diggante yàlla mën na cee indi saafara wala mën naa dogal jafe-jafe yi mën naa jeex ci jàmm wala mën naa ubbi ay bunt yoo xam ne yokkute lay doon ci yéen ba tey bokk na ci gént gerte tranga la mooy tranga yu yaatu lay tegtale wala ubbeeku bu baax a baax a baax gerte nag fu muy firee war bëriwut fu muy firee war bëriwut gerte kemb ci am na ci anam boo xam ne da waxtaan ak nit ci wàllu liggéey ci anam yooyu yenn saa yi mën na taxaw taxawaayu wor mooy nga gént ñu jox la gerte kemb ci anam boobu loolu it te nga waxtaanee ci wàllu liggéey mën na taxaw taxawaayu wor benn bi ci toppaat mooy gént ñu jox la gerte xottu gerte loolu it bu dee koy waxtaanal mën nga dem ba ci biir mën na am ay war loolu it ñaari anam yooyu lu ci ëpp mën na doon ak gerte xot gerte gu tooy loolu gént yéyu ko tamit dana tegtale ay jafe-jafe wala ay xat-xat yoo xam ne nit ki mën na koo jànkonteel moo tax ci anam yooyu rek amaana ci lay gerte di indee ay jafe-jafe waaye jafe yeneen yi ci ëpp yëpp yàlla mën ne dogal mën naa bañ a nekk loo xam ni jafe lay doon bi ci tam nit ki situation yi mu toll ci lay ak géntam di gën a leere situation yi nga toll ak jamono ji nga toll ak li ngay sàkku ci ngay mën a xam boo ci géntee nga mën a xalaat wala nga dem gëstu ci ko xam gént bu la ko tegtalee di nga xam ne sa gént yi taxawaay bii la am ci wàllu mbir moomu noonu nga nekk bi de saat gént message la mooy lu suñ boroom lancé pour nit ci mën cee jàngee kon bu caagi da ngay gént dara nañ rek ne xëy na euh, loo xam dafa tombe la déedéet saa bu nit ci géntee dara loo xam ne xalaatu ko nekkul ci am xelal bàyyiwu ko xel saa bu ko géntee rek mu nekk lu gàtt lu am solo loolu na leen gëstu ji lan lay tekki mu jéem koo xam pour jéem a xam ndax loolu su ko defee mën na koo dimbali baax waaye doo gént dara xamoo li muy tegtale nga bañ koo gëstu bijisaat eh, ki naan gerte war la loolu yenn saa yi danay nekk njuumte ci ñenn ñi gerte bu nekkee war du ci ñëpp la nekk war ci misaal ki nga xam da doon ñaan yàlla ne barab yi may liggéeyee kat bëgg naa fa yokkute mu gént jox ko gerte ci anam boobu rawatina gerte kemb ci barab boobu loolu mën na rafet njort ni mbir mii mu doon sàkkukat wala mbir mu doon bëgg ala xaalin mën naa sotti te bu sottee tamit dana nekk loo xam dana gën ci moom. kookut foofu gerte du nekk ci nekk foofu war kon loolu it lu ma di bàyyi xel même gone gu jigéen gu amagut borom kër gént ñu jox ko gerte loolu it mën na tegtale wërsëg gu yaatu wuy ñëw ci moom wa ngoro goo xam ne sëy mën na cee juddoo même wàllu tukki bu jafe loolu euh, gerte baax na ci gént ko dana tegtale tukki mën naa yomb jigéen ju am jafe-jafe am doom doon ñaan yàlla ba xam dana am doom mu gént ñu jox ko gerte baax na loolu dina tegtale mu ngi yoonu jël ëmb surtout maa mu gént di lekk gerte rawatina boobu day tegtale ni moom mu ngi ci yoonu jël ëmb te bu jëlee ëmb ala kulli xaalin mën na cee am doom joo xam ne ku yaatu wërsëg lay doon wala ku yaatu njëriñ lay doon kon loolu ay tegtal la wala ay misaal la ci ni gént gi day changé ci nit ki ak ci jamono ji nga xam noonu nit ki toll waaye du caagan na ngaa gént gerte nag baax na rek nga bëggoon a digg loolu du ci sukkandiku du loolu ndax ku ne da nga am say réalité ku ne nga am sa géntu bopp fi ñu nit ñi lu ñu bari bari bari du téye gént yi noonu lañ changé kon saabu bu nee gént sàngam baax na baax na waaye du ci ñëpp lu baax am na période yooyu toll du du baax ci yow fi noonu deret li muy bon bon am na deret ñoo xam ne saa buñ ko géntee bu dee bis boobu mën nañ cee jot xaalis bare bare kon loolu kooku gerte baax na ci moom kooku deret baax na ci moom beneen bi ci desaat gént ndox luy baax du ñëpp la baax ki nga xam dafa gént nekk ci biirum ndox ba lat ci kooku ndox baaxut ci moom ci anam yooyu ci wàllu géntam kon saabu bu nee nangam baax na du caagi na ci ñëpp la baax waaye boo defee istitna mooy sette dana am ñoo xam ne dana baax ci ñoom am ñoo xam ne du baax ci ñoom kon lii ay misaal la wala ay tegtal yoo xam ne nit mën na cee sukkandiku xam ne su géntee nangam ak jamono ji mu ak ci ay ci lay mën a xam ne gént gi taxawaay bii lay am ci moom kon euh, lii lañ indi woon tey leeral ci wàllu lu aju ci gént gerte ak taxawaay yi nga xam ne dana ko am nit ki ak tolluway yi nga xamni nit ki da ci toll diko genn kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi borom jamm yalla yalla jammal ñu di nuyu ñepp ñi nga xamni ñu ngi déglu kaddu gi fu ñu mënti kaa nekk di ñaan suñu borom mu yor wërsëg yalla yàlla ubbi suñu wërsëg ubbi wërsëg mbollem ñi nga xamne dañuy deg kaddu gi wa aghru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin